transparence et sous réserve des règles du principe de la présomption d'innocence loolu tamit xel mën na ko nangu mbirum mbirum uh, Abdoulaye Diba xam nga démb soulevé woon na débat bu rëy Cheikh Diba Cheikh Diba mhm. autant pour moi ñu gis ni leaderu <laughs> gëm sa bopp nee li waral Abdoulaye euh, Cheikh euh, Diba teewu fa. Mhm. mooy que ni xam na ni ce que le premier ministre li muy wax dara amu ci ci ay chifre mhm. alors que le premier ministre moom biñ ko interroger par rapport ak wu Cheikh bi. Mhm. dafa ni muy moom muy keneen. képp koo xamante ni yoon war na la woo peu importe fi nga war a bokk da ngay dem wuyu ji. moom loolu la ca tontu. Euh. waaye ka ca wet ga moom nee na xam nañu la ñuy wax dara amul ci moo tax mm-hmm. teewu fa. Mm-hmm. su naataangoo les échos tamit. Mm-hmm. am na luñ ci rajouté l'absence du ministre des finances et du budget Cheikh Diba à la conférence de presse du premier ministre Ousmane Sonko ce jeudi interroge donc soulevé na ay interrogation lu tax mu absent il n'est pas exagéré de dire qu'un exercice de présentation de supposé maquillage sur les finances publiques sans l'argentier de l'État aux premières loges est intriguant hmm. parce que la logique dafay bëgg wax dëgg fa yàlla ki ñu dénk waxtu wi lu jëm ci wàllu kopparu réew mi waruñoo mën a wax dara ci kopparu réew mi te ki nu ko dénk tamit boobu ba tey eh, mu am lum ci xam ndax moom moo wuutu ñi fi nekk ci secteur boobu gum mm-hmm. teewul ngir gën ñoo mën a leeral parce que tamit département am la donc absence am bi indi benn intrigue léegi nag d'autant que ce dernier occupé à l'époque des faits présumés parce que le post stratégie de directeur de la programmation budgétaire dans le ministère qu'il dirige maanaam ci nguuruk régime gi weesu mhm. Cheikh Diba mi moom moo nekkoon le directeur de la programmation budgétaire dans le ministère qu'il dirige aujourd'hui moo tax nee na mais si l'on en croit les échos il n'y a pas de quoi fouetter un chat le concerné était retenu par ses charges professionnelles à l'étranger donc nit ñi mhm. nañu xam ne di ba mi nga xamante ni actuellement moom mooy ministre mi ñu dénk suñu portefeuille finance bi waxtu wii ngeen jàppee ni waroon na teew te teewul. Mhm. ay charge professionnelle am ñu ngi ko retenir ca États-Unis ca New York après son séjour à New York avec le président Diomaye Faye Cheikh Diba est actuellement à Paris pour les besoins de son travail. loolu tamit taskatu xibaar yi indi nañ ci maintenant nag par rapport ak Bougane mi ngay wax Bougane nee na n'y croit pas Cheikh Diba aurait boudé la conférence de presse selon le, leader de Gëm Sa Bopp qui a fait face à la presse à son tour juste après la sortie du premier ministre parce que nee na quand il maanaam Cheikh Diba l'ont informé de la rencontre rapport Bougane il leur a demandé de lui envoyer les chiffres les textes à présenter il devait se déplacer pour venir assister mais quand il a vu ce tissu de mensonges la décision de à participer à la léegi nag lii buggaan wax ni. ah bi nga xamante ni bu ko di ba porté plainte pour diffamation mën na ko cee bu mu ragal a dem wuyu ñu nag na dem assumer buggaan nee na non non déet déet li buggaan def nii c'est d'une extrémité c'est c'est grave c'est grave kay c'est extrêmement grave buggaan nee na Cheikh ba mhm. moo lànk ba ñu ñëw ndax nee na ñooñu lu ñu demoon di ñu ko wax démb ci askan wi dara du ci dëgg loolu la buggaan wax kon defe naa ni Cheikh ba moom la ñuy déglu la balle est dans son camp bu fekkee li buggaan wax monsieur le ministre Cheikh ba dëgg la bëgg nañ xam bu fekkee du dëgg bëgg nañoo xam. Hmm. donte nag bu fekkee tamit li muy wax du dëgg mais bëgg nañ tamit comme réew mi réew mi yoon la. mënuñu am suñuy ministre nu mën leen a wax li nu mel ci média yi. Hmm. après mu seddee noonu. kon man personnellement maa ngi ñaan autorité yi li war ci li buggaan wax ni parce que c'est extrêmement grave ñu jublu ci parce que ab ministre bu ñu dénk finance réew mi. ñu jàpp ni waroon na teew teewul Bougane nee na mhm. Bougane nee na moom di ba dañ ko informer rencontre bi Bougane mooy nettali de mhm. nee na dafa leen na wax ne leen yónnee leen ma chiffres ak texte à présenter ba pare il devait se déplacer pour venir assister mais quand il a vu ce tissu de mensonges j'ai appris qu'il j'ai appris qu'il a pris la décision de renoncer à participer à la rencontre mhm. donc lii ay kàddu Bougane la donc ministre mi nu dénk finance bi monsieur Cheikh Diba xëy na nu ngi sàkku lumière am ci lii Bougane wax ni parce que lii mu wax ni bu dee dëgg la. Hmm. c'est extrêmement grave. Hmm, lii kay weesu nag. maintenant nag dans un communiqué repris par suñuy naataango l'observateur cellule de communication ministère des finances et du budget nee na. il y a une tentative de détourner l'attention sur le chef du département, sans se prononcer sur les raisons de son absence à la conférence de presse où le Premier ministre pointait des irrégularités supposées dans la gestion des finances publiques. Sous Macky le communiqué a tenté de démontrer que le ministre n'a aucune responsabilité dans les faits supposés évoqués. Parce que nee nañ le rôle du directeur de la programmation budgétaire ave été rempli par di ba sous le régime de Macky Sall est purement technique et consiste exclusivement à coordonner la programmation de la loi de finances votée par l'Assemblée nationale avec la contribution des différents services du gouvernement rappelle le texte maanaam ministre bi département am euh, ci communiqué gu ñu indi par rapport ak responsabilité bi mu amoon ci nguurum Macky ci ministère ba mooy que ni moom mënuñu ko tuumaal ndax post gi mu féetewul jotewul dara ak ñu bëgg la ci li jot a xew Hmm. mais daal fi may ci mbir mi dem da ci def taxaw seetlu. ci hmm. ñàkk teewaayam Ousmane Sonko am na lu mu ci leeral. moom ci jëmmi boppam waxagul. Hmm. Bougane moo ko waxal mooy porte parole bi xam na. n'est-ce pas. waxal na ministre bi. léegi nag monsieur le ministre nag comme askan wi chaque fois dañuy bëgg am lu nu leer te dëkk bi nag jub jubal jub jubal jub. jubal nañ defe naa ni euh, fu wan nen di mu jékki gëtam ci dossier bi bëgg nañ ñu leeral ñu ndax Bougane li muy wax lu am la wala lu amul euh, jubluwuñu ci pour ne dañuy gëm waxu Bougane wala dañ koy bañ a gëm mais lii mu wax dañoo bëgg ñu indi ñu ci ay leeralal parce que accusation parce que tamit bu fekkee lii mu wax amul tamit nag yoon war a mën a def liggéeyam parce que ñu am ay jëwriñ ay ministre yu ñu dénk ay portefeuille Ibrahima Sow ne daa bëgg rek ku ko jàpp kenn du ko jàpp day dem législative non déedéet li xale wax Macky Sall kenn xeexul non su fekkee jàppuñu ko bu subaa yeneen yi buggaan am te boobaa picc xool leen duru te yoon dañ ko fi teg pour mu yoonal man foofu rek laa bëgg waxee mm-hmm. Marieta. Euh, yaa Moussa ñu gis euh, Mamadou Ibra Kane euh, patron mouvement Demain c'est maintenant mm. ginnaaw bi nga xamee ni le premier ministre fësal na chiffre yooyu moom nag la mu ca teg mooy ne dafa nekk koo xamante ni daanaka dafa waroon taxaw ci liggéeyu askan wi waaye mu nekk fi li muy def nii daanaka campagne la dem na sax ba ne lu toll nii ñuy ubbi mbirum bateau le Joola bi nga xamante ni ouverture musée mémorial bi. Mm-hmm. Ousmane ko dafa waroon teew en tant que premier ministre waaye en tant que tamit maire de Ziguinchor mm-hmm. waaye dafa préféré toog fii li muy def nii di campagne mu mel ni ñoom nattuñu gravité bi nga xamante ni ah démb conférence de presse bi am na ko. Mm-hmm. Mamadou Ibra Kane kan mooy leader politique am fi mu ne nii. kuy leader am. Ba la àndal. waaw Ibra Kane membre la fi mu ne nii ci nouvelle responsabilité bi. Mm-hmm. c'est-à-dire allié la daal. Ah, am na mouvement am na kuréelam demee semaine naa mais fi mu ne nii il s'est rangé aux côtés de Amadou Ba. Ah, démb tudd nañ Amadou Ba wala tudduñu ko. tudd nañ ko mu ngi ca biir. kon fii léegi fan yi ñu jëm normalement war nañu woo. Ah. kon moom il est dans une démarche boo xamante ni bu waxee ni warula bett nest pas. mais ndax lii mu wax duñu duñu duñu dindi suñu tissu politique bi. Mhm. ñu sol suñu suñu tissu. non lu jafe la sénégalais bi pour xam ne lii nii c'est extrêmement grave moom la ñuy utiliser comme bouclier ñu bëri noonu la ñuy utiliser comme. bouclier non mais sérieux parfois Sénégal da nga naan est-ce que sérieux am na fi aussi. suñu ay hommes politiques waaw non moom moom il est dans son sérieux li muy